mbokk incha allah ñu ngi war a jël suurat suratul fatir ci aaya ñeent bi aaya ñeent suratu fatir إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din kon insha allah ñu ngi war a jël suñu borom fi muy waxee ni wa in yukazzibuka ci ñeenteelu aaya bi ci suratu fatir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون
بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sun boroom mi ngi wax ak ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam wa in yukazzibuuka su dee day dañ laa weddi faqad kuzzibat rusulum min qablik weddi woon nañu ay yonent yu la jiitu woon wa ila allahi turja'ul umur doonte ne ci yàlla le mbir yépp di dellu yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi inna wacda allahi xaq dugub yàlla day dëgg la falaa taxurannakum alxayaatu dunya bum leen warwaay dundug àdduna gi wala yaxurannakum billahi alxaruur bum leen wor ci yàlla wara kon ba muy cheytaan inna cheytaana lakum aduw cheytaane day seen noonu la fattaxiduhu aduwa jàpp leen ko mu nekk seen noon innama yad'u xisbahu moom ma ngay woo lii di parteem li yakunu min ashaabi sair ngiree ñu bokk nekk ca ñoñu صور الصعير الذين كفروا لهم عذاب شديد ñi weddi day dana leen ñeen mbugal mu tar walladina amanu wa amilu salihat ñi nga xam ne dañoo gëm te jëf-jëf yu yëw ya lahum magfiratun wa ajrun kabir ñoom day dana leen ñeel njëggal ak yool boo xam ne bu màgg la afaman zuyyina lahu suu amalihi fa ra'aahu xasana moo ndax ki nga xam ne dañ koo taaralal jëfam ju ñaaw ja mu gis ne moom kat lii lu rafet la fa inna allaha yudillu man yashaa'u yàlla day mooy sànq ku mu neex waaye wa yahdi man yashaa mooy jubal ku mu neex fala tadhhab nafsuka alayhim xasaraat bul yóbbu mukk sa bakkan bi ci ñoom ngay ci nekk koo xam ni day dem ba bëgg caa alku bul alak sa bakkan ci ñoom inna laha alimun bi ma yasnaun yàlla day moo gën a xam la nga xam ne ñoom ña ngi koy jëf mi ngi noonu mbokk jullit gis nañu ni alquran ji sunu borom yàlla def na ko jubluwaay yu rëy bokk na ci jubluwaay yooyu mooy dalal ab yonentam ak jullit yi ko gëm ndax sunu borom moo wàcc dëgg te nee na aksaruhum lil xaqi kaarihuun li ëpp ci nit ñi bëgguñoo dégg dëgg kon yow mi nga xam ne da ngaa bëgg dund dëgg coono bu ne da nga ko daj ci wax yu ñaaw yuñ lay wax ak jëf yu ñaaw yuñ lay jëf te loolu it yonent bi alayhi salaam xamaloon nañu ne lu àdduna gën a yàgg muy gën a tar bal yonent bi alayhi salaam xamal nañu ne suñ demee ba mujjug jamono ñii nangoo mooy ci sama sunna dañuy mel ni dañoo moy xalu safara te mbokk xam ngeen xalu safara koko moy doo toog benn place doo am jàmm daana waxit ne coono yéen leen di dikkal yàlla dana yëkkati seen daraja ba ñu am daraja yi juróom fukki saxaaba ala kulli xaal suñu yonent alayhi salaam xam nga ne ñëw ci aw xeet ñu nekk ci yoonu sawara nga indil leen loo xam ne buñ leen buñ la wuysee yàlla baal leen tabbaleen ajjana nga wax ba pare ñu ne li ngay wax dara du ci dëgg fen rek ngay def mbokk loolu ñaaw na lool ci penc mi sunu borom yàlla nag na ko loolu bu mu la naqari sa maam yi yeneen ti fi jaar yépp ba ñu waxee dañu leen wax fen ngeen gis ngeen lool it lu mu lay jàngal mooy yow wootekat bi nga xam ne yaay woote gannaaw ba di wax yàlla nee na yonent yàlla nee na ñu ne la da ngaa fen da ngaa indi lu bees loolu moom bu mu la jaaxal sunu borom mu ne lépp ci man lay dellu si ay moo yor attey adduna ak attey alaxira looloo tax ci adduna atte woon na digganteemi yonentam ak ñu leen weddi woon te ci mujjoon mooy sunu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay bi muy wàcc ci makka la wàcce gis nañ at yu néew la yàlla subhanahu wa taala dogal bañ demee ba jéggi dayoo ne nañ ko rey benn yoon yàlla rocc ko génn ko yóbbu ko madina ñaari at après mu dajale mboolem kàngami màkka yi ñii ñu rey leen ñii ñu yeew leen yóbbu madina kon ila allahi turja'ul umur mbir yi ci yàlla lay dellu suñ borom yàlla woote soo fàttali ko woowoon nañu démb ba ñuy ibbi saar bi yaa ayuha nnaas uskuru ni'matallahi alaykum danañu fi woo ñetti yoon ci biir saar bi yaa ayuha nnaas foo ko bëri gis rek xamal ne saar layu wàcce makka saar ya ñëw madina ñoo bari yaa ayuha alladina amanu amma yaa ayuha nnaas mooy ay yéen nit ñi nit ñooñu nga xam ne dañ ëmbaale jinne yi ca kuy nit kon war a wax la bayk allahuma sunu borom ne xam leen ni diggu yàlla bi dëgg la mbokk yàlla mi bind adduna bi indi ñu fi def fi lu nekk moo ñu digg na day mas a jeex beneen dund commencé waat yéen nit ñi xam leen digg boobu dëgg la léegi nag dund gu jëkk gi di dund ak adduna ngalla waay bu mu leen wor adduna bu mu leen wor ba ngeen topp ko ba fàtte allaaxira ca mbokk adduna wara kon la même bu allaaxira amul woon da ngay gis na boo yàggeeg moom rek mu wor la ah Bilal Thiam ah ci tisbaar ñi ngi dund su benn góor boo xam ne dañ koy xam ak njaxlafam ak yépp waaye pour mu ñëw ci jàkka ji traversé bunt bi dugg fii rek kenn xamul lim fi def ci ay temps noonu jëmm ji di demee ba faible bu yàggee ci xel mi lay compte mooy lay lay am jeexital gis ngeen bi ñuy julli mi ngi taxaw ci sunu kanam di julli def ko sax problème ba ko àdduna moo mel noonu mooy bu yàggee da ngay daan dem di tëb en tant que ndaw ngay dem ba mujj mënatoo loolu dox rek ngay man waaye da ngay dem ba mujj boo toogee dañ lay may loxo nga jóg dañuy dem ba mujj lal ba nga tëdd dootoo fa wàcc soo daan tiim boolu ceeb di dank juróom fukki dank caamin da ngay mujj dem a dem ba ndeysaan da ngay mel ne picc buy lekk gis ngeen adduna noonu la demee su ko defee ku ko topp ba jaay sa ngor ba jaay sa diine yow yaa perte suñu borom mu ne bu mu leen wor adduna laa taxurrannakum xayatu dunia gannaaw ba it seytaane bu mu leen wor alxaruur mooy seytaan mi nga xam ne day war doomu aadama di ko mébét loo loo am mu ne la amagoo dara de loo man mu ne la mën a góode di la puus rek ngay xuus dajale alalu adduna dajale ay pal dajale ay tur ila axiri fàtte loolu la nga xam ne mooy allaxira wor la ci loolu sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne seytaane seen noon la jàpp leen ko mu nekk seen noon mbokk seytaane suñu noon la ndax la doxoon digganteem ak sunu maam aadama ba tax yàlla wàcce ay garaatam ca la ne yàlla soo ma bàyyee ma dund ba ilaa yawmi diin ñii dinaa leen yóbbu sawara ñoom ñëpp sunu borom yàlla ne ko may naa la nga dund mu def ñu noon su ko defee yow it def ko noon nu ñuy noon ak seytaane ci gisuñu ko mooy mboolem yoonu mooy yàlla xamal ni xutuwaatu seytaan la sunu borom nag mu ne bu ko ca topp laa tattabiu xutuwaati seytaan innama alxamru wal maysiru wal ansab wal azlam yooyu yëpp rijsun min amali cheytaan lépp lu lay soril yoonu yàlla rek min xutuwaati cheytaan noonu ak cheytaan mooy bu ko jege bu fa dem cheytaan boobu jàpp leen ko noonu moom day mi ngi woote parti ba ko gëm nar leen yóbbu sair ca mbokk julit soo demoon dañ naan dëkk bu rëy na Amérique ñaari parti fa am les républicains et les démocrates adduna yi ñaari parti doo nga fi nekk mooy xizbullah ak xizbu shaytan parti bi ànd ak yàlla ca mooy gëm ko wéetal ko képp koy bokkaale yàlla léegi débarqué nga yaa ngi jëm léegi ca parti shaytan sunu borom yàlla mu ne shaytaana boobu parti am nu mu def ak ñoom istahwaza alayhim shaytan fa ansahum zikrallah ulaika xizbu shaytan ala inna xizba shaytan humul xaasiroon seytaane day fexe ba dox sa diggante ak yàlla fàtte loola yàlla boo jàqee mu ne la xalaatal sëñ diw day amul morom de gis ngeen boo amee yaakaar mu ne la sëñ diw amul morom de daal di dox sa diggante ak yàlla mi nga xam ne moo la bindoon moo la wërsëgal moo lay rey moo lay dekkal day dox sa diggante ak yoom istahwaza alayhim shaytan fa ansaahum zikrallah ñu ngi noonu day woote doonte ne ne woote boobu nag fa la yem amul kattanu yenu la yóbbu la ci xërëm ba wala ca bàmmeel ba ne la sujjuutal par force seytaan yi du def loolu tey woote rek moo tax yowmal qiyaama bu gaa yi duggee sawara mu ne ah gaa yi teer ngeen nañu ne waaw mu ne ah falaa taluumuu nii de bu leen ma kenn yedd nag waluumu anfusakum ku yedd na yedd boppam dara amul woon dama leen war a ngeen wisi woon illa am daawatukum fastajabtumu nii lii rek la kon mbokk loolu itamit sunu boroom teel nañu ci avertir borom bi nag ne ñooñu nga xam ne dañoo weddi ànd ak seytaan mbugal yu màgg yu tar mi ngi leen di xaar te mbokk heure boo nee àjjana dara dara melul ne moom boola ci it ne sawara dara melul ne moom suñ borom nee na laa yuazibu azabahu ahad kenn munta mbugal ba mbugal ni yàlla di mbugale borom boobu nag ne ñi nga xam ne nag ñoom dañoo gëm ca def jëf yee yàlla jëflu muy jëf yu baax na am bakkaar bi munta ñàkk ndax yàlla leen bind noonu suñ borom moo bind nit ak jinne fokk ñu def bakkaar koo dégg ñu ne sëñ diw mus sa def bakkaar waxul li am yàlla kay subhanahu wa taala moo ñu bind loolu kullu bna aadama xata waaye maadaama seen ngëm sell na ngi jëf jëf yu baax bakkaar yooyu ñu rëcc di ko def suñ borom di leen ko tàppe dana leen baal lépp ba pare may leen pay boo xam ne pay gu màgg la za raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira mooy pay boo xam ne bu màgg lay doon muy aljana bi nga xam ne kenn mënu koo imaginer sunu borom wëlbatiku dellu si waat ci tonkat yi mu ne waaw kii nga xam ne dañ koo taaralal jëfam ju ñaaw kan moo ko ko taaralal muy cheytaan mi ne woon yàlla subhanahu wa taala la uzayyinanna lahum fil ard yàlla lépp lu bon lu ñaaw danaa ko taaral ci ñoom yàlla taaral ki nga xam ne jëfam ju ñaaw yàlla da ko ko taaral masalan waa ji dem ci borom bàmmeel bi wala fa mu nekk di woo tey ab sëriñ di xettali ko ci moom yaa cheikh diw yaa nangam diw pour moom seytaane ko taaral danaan man dem ma ca garab ga dem ma ci kóor ga kii wali yu yàlla kamal la kii ku yàlla gërëm la kon naa ko jël def ko sama digganteeg yàlla ba ko loolu taarulu seytaane la ndax yàlla musul jox benn ci ay jaamam koo xam ne da koy doxali digganteem ak jaam yi mu war leen a régler lu mu mën a doon wala misqaala zarra koo xam ne dañ koo taaralal ay jëfam moom mu jàpp ne jëf yi day lu rafet la faraahu xasana loolu da ngay gis ne sun borom yàlla mi ngi ñu koy wax ci suratul kahf qul hal nunabbi'ukum bil axsarina amala xanaa du ngeen kaay ñoo xam ñi gën a perte mooy allazina dalla sayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa mooy ñooñu nga xam ne seen jëf yëpp perte na ci àdduna te jàpp nañ kenn gën leen a rafet jëf te loolu mbokk mooy bidaa looloo tax dañ naan lii nga xam ne mooy bidaa moom la seytaane gën a bëgg bakkaar bu mën a doon ci bakkaar yi waa jee nga xam ne mi ngi dem di nekk góor jigéen ak caga baag agresseur baag bu dee doomu jullit la en général xam nañ ne lii ñu ngi koy def mais xam nañ ne baaxut xëy na ñu ngi ñaan yàlla yàlla génn ci mi ngi noonu ca loolu mooy di am lu bari amma niti biddaa foo ko fekk mi ngi ñaan yàlla rey ko ci loolu mi ngi noonu ndax dañ ko koy taaralal day jàpp ni leneen lu dul lii du dara day jàpp it mi ngi noonu su ko defee seytaane loolu moo ko gënal sunu borom nag mu ne mooy réeral ku ko neex ci ay jaamam doonte ne loolu ci maandu teem la koy defee du jël mukk nit réeral ko au départ waaye dalaa jox am xel indi ci yow ay lay boo gisee lay yooyu wan ko gannaaw suñu borom yàlla réeral falamma zaaxu azaaxa allahu qulubahum ba demee ba jeng dëgg gi bañ ko topp yàlla jengal seen xol gannaaw ba it yahdi man yasha mooy jubal ku mu soob ci ay jaamam ñu ngi noonu da ngay gis waa Quraysh yi bokkoon ak suñu yonente Muhammad alayhi salaam ay maam mu judd seen kanam yaru seen kanam di jëf jëfam yu sellee di wax alquran ju tedd ja ñun dumm yu ko woon ko gannaaw tey fa lillahi alhamd soo demoon Makka américain yaa ngi espagnol yaa ngi chinois yaa ngi canadien yaa ngi amul benn race tey ci kaw suuf bu nit mën a xam lu dul am na ko fay jóge di aji ji Makka kon yàlla mooy jubal ko ko neex ci ay jaamam ñu noonu yàlla jubal ko ko neex ci ay jaamam gis ñoo xam ne dañuy dem di jàng alquran mokkal téereb yàlla bi ca baat bi gën a néew ci arab xamuñu ko loolu kon nga gis ne mbiri yàlla la subhanahu wa taala moo tax yow yenente bi bul rey sa bopp ci ñi waaraatee nga ñu lànk sa yoon néewul ci léegi ci ñoom sa warugar wàcc na bul alak sa bopp ci ñoom yàlla gën a xam li ñuy jëfe te it loolu léeg-léeg mu nekk lu metti rawatina bu dee ay waajur la wala ay frère la wala ay xarit la yoo xam ne nii da ngay gis ñu nekk ci yoonu dëngate nga waar leen ñu sax ci loolu nga jàpp ni ñi buñ ci dee sawara lañ jëm teewul bu mu tax nga rey sa bopp yow daal sa devoir wax nga ko gannaaw ba li ci des bàyyi yàlla ak i jaamam yàlla gën a xam ay jaamam yàlla nañu boole ca jaamam yamu gindi
الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يذكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير barakallahu fiik suñu boroom jalla wa ala mu ni wallahu alladi arsala riyah yàlla mi nga xam ne moo yónni ngelaw ya fa tusiiru saxaaba ñu daal di dem yenu la nga xam ne moom mooy ay niir yëkkati niir ya fa suqnaahu ila baladin mayit ñu jeñ ko puus ko ba ci dëkk bu dee woon fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha ñu dekkal ca suuf gannaaw ba suuf deeyee kazalika nushur naka nii day lañ leen di dekkale man kaana yuridu al izzata fa lillahi al izzatu jamia képp koo xam ne dafa bëgg ak teddaange mboolem teddaange day ñel na yàlla ñel na yàlla mboolem teddaange ya ilayhi yas'adu al kalimu tayyib ci moom day lay yéeg kaddu gu tey ga wala amalu saalixu yarfa'u jëf ju baax ja moo koy yëkkati wallazina yamkuruuna sayyi'aat ña nga xam ne nag ñooy pexe ay ñawteef lahum azabun shadid dana leen ñeel mbugal mu tar wa makru ulaika huwa yabuur pexe ñooñu day moo jëm ci ak sanku mi ngi noonu su mag ñi bu ñuy jibane jiw wa buur na mooy jeex na tàkk wallahu xalaqakum min turab yàlla mi ngi leen bind jële leen ci ban ci suuf summa min nutfa gannaaw ba mu sosa leen ci ay toq maniyu summa jaalakum azwaja gannaaw ba mu def leen ngeen di peer ñi góor ñi jigéen wa ma taxmilu min unsa amul benn jigéen buy ëmb wala tada'u wala muy wasin illa bi ilmi lu dul ci xam-xamam wa ma yu ammaru min mu ammar du nekk ñuy dundal kenn ku ñuy dundal wala yunqas min umri wala ñuy wàññi ca dundam ga illa fi kitaab lu dul lépp ma nga ci ab téere inna zalika ala allahi yasir lool day nekk na ci yàlla di aji yomb lool mbokk suñu boroom gis nañ ne saar yi wàcc Makka la ëpp lam ciy défendre waaye xamal nit ñi ne yàlla kenn la waaye xamal nit ñi ne allaaxira lu am lu sax la moo tax aay yu bëri di wax naan li man kaana yuminu billahi wal yawmil axir loolu mooy base fondement ngëm yépp suñu borom mu ne mooy yónni ngelaw ya ngelaw yooyu boo delloo ci téereb yàlla bi am na lu mu ciy tuddee qaasif aasif sarsar riihal aqim yooyu yépp fu mu koy tudd ma nga fay wax ci loo xam ne day indi ay musiba ci nit ñi am na lu muy tuddee naashiraat mubashiraat mursalaat zaariyaat yooyu lu ci bari dafay indi ay xéewal ci nit ñi dana koy tudd it lawaaqixa mooy ya nga xam ni ñooy boole fleur yu góor yi ak yu jigéen yi ala kulli xaal mbokk sunu borom moo am magasin ngelawam ngelaw yi jóge penku yi sow yi jóge nord ouest yi jóge sud sud ouest boo doon xool météo mu lay wax circulation ngelaw bi am nga xam ne dara du ci hasard yee ngelaw yu tàng la yee ngelaw yu sedd la sunu borom xam fu mu leen di dajale ba moom mën a jur la nga xamee ne nii mooy formation nuage yooyu formation niir yi gannaaw ba la sunu borom di wax ne ñooy yëkkati niir yi bu ko defee suñu borom yàlla niir yooyu mu puus ko ba ci dëkk ba ko soob te bu ñu la waxee d'après scientifique yi ci seen wax dañu naan la dana wàcc année bu nekk cinq cent vingt mille milliards de tonnes ci ndox mooy wàcc année bu nekk mbokk loolu xam ngeen bari na de ñu ngi noonu sunu borom yàlla mooy jël nuage yi nga dégg météo des prévisions ñu ne kat suba war na mën a taw à quatorze heures lu waral loolu am na benn formation nuage bu jóge Mali bu ñu xolli rythme bi muy daw ak parcours bi mu war a def bu ñëwee fii am na yeneen courant d'air yu mu fi dajee fokk war na am précipitation taw war na am natt yooyu la ñuy natt à quatre-vingts pour cent léeg-léeg mu am nañ ko waxee léeg-léeg it yàlla muy def lu ko neex njuuy leen ala kulli xaal suñu borom nee na maa yóbbu ndox fu ma neex sotti ko fu ma neex ci dëkk boo xam ne dafa wowoon ma dundalaat suuf bi mu ne nag noonu ngeen di dekke te loolu comme niñ koy waxee toujours rek kon nag Ndakaaru xamuñu loolu waaye ñoom Ousmane ña ñi yaroo ci àll ba da ngay gis ne jamono ji boo demoon ñoom Baye Ndiaye ak Baye Sow seen tool gajji nañ ko dajale ñax mi taal ko lokkat ko mu wow koŋ doo gis dara waaye sunu borom yàlla bu tawee nga jóge fa un mois après delluwaat gis àll bi yépp di nif nifi ak ñax delluwaat fa trois mois après nga gis lépp ñor na gerte gaa ngi ñebbe jaa ngi dugub jaa ngi yàlla mi jëloon suuf bu wow boobu wàcc ci am ndoxam mu génne loolu loolu muy wane ni kazalika nushur yéen it bis boo xamee ne ni samam ji pare na xam ngeen ni doomu aadama balaa balaa góob dana ji ba pare fi mu ne yàllaa ngi ji mi ngi noonu mi ngi ji ci toolam bi di suuf moo xam ñaata milliards la fi nar a ji ci ay doomu aadama suñ demee ba kii mujj juddu juddu léegi lan moo ciy tegu adduna jeex na léegi su ko defee suñu borom tukkal adduna bi daa di nag jëlaat la ko soob ci ab taw bu muy wàcce daa di nag dekkalaat doomu aadama yépp jóg taxaw kazalika nushur borom bi subhanahu wa taala nag ne ki nga xam ne dafa bëgg a tedd teddaanga bu sax ba faw na xam ni yàlla moo yor mboole mi teddaange te loolu mi ngi ñu koy wax qul illahuma malika al mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi al mulka mi man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha yàlla mooy teral ku ko neex ci ay jaamam te jaam yooyu ñakka ci gëm la ko ci jagleel qul lillahi al izza wa li rasulihi wa lil mu'minin ki tedd ci kaw suuf ànd ak personnalité am muy ab julit même bu doon dañ koo jàpp dugal ko ci prison bi teddaangeem lay dugale prison même buñ ko jàppoon condamné ko à mort teddaangeem lay demee ci condamnation à mort boobu ndax day gëm ne mi ngi ci li neex yàlla donc lii ngeen koy def dayu ko rek ay darajaam la ibnu taymiya rahimahullah doon wax bokk gaa yi jàpp di tëjee ko tëjaat mu ne man gaa yi li ngeen ma manal mu ne man su ngeen ma tëjee tëj googu day nekk ci man xalwa ay itikaaf ndax yéen a ma tëj kon man am naa jotu toog di jàng alxuraan nekk zikrullah moom la toll. mu ne bu ngeen ma génnee dëkk bi it mu nekk ci man siyaaxa danaa dem génn beru ji jaamu borom bi su ngeen ma reyee it mu nekk ci man shahada kon dara ngeen ma mënalul jeex na kon julit mooy borom teddaange boobu am maa nag. lay sax ci àllaaxira itamit julit dong moo ko am looloo taxit ba moo ko julit teddaanga boobu bu ko sàkku ci keneen ku dul yàlla na doon teraanga àdduna la wala teraanga àllaaxira amma yéefir yi da ngay gis ñu ngi wut ay bokkaale yoo xam ne suñu borom mu ne ayabtaxuuna indahum al izza xanaa du teddaanga la ñu wute ci ñoom fa lillahi al izzatu jamia xamuñu ne yàlla moo yor teddaanga yépp yàlla waay julit lu la jaaxal diis ko sa boroom mooy al aziz ca wal izza yépp ci loxoom la nekk amul lenn lu la mën a teral àdduna ak àllaaxira lu dul ci yàlla moomu jalla wa ala la jóge borom boobu nag ne ci moom la yéeg kaddu yu teey yi kaddu yu teey yi la ca jiitu mooy askar yi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la ci gën a màgg mooy alquranul karim amul lenn loo delloo ci yàlla lu gën a màgg alquran ngi noonu dara mun loo ko yéege ci yàlla lu raw la fa wàcc jëm ci moom te mooy alquranul karim mi ngi noonu donte ne kalimu tayyib mooy bépp wax bu yàlla gërëm na doon loolu digle lu baax la na doon loolu tere lu bon la wala jàngale bu mu mën a doon buy jur njëriñ loolu kàddu yi teey la mi ngi noonu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne benn waay dana wax benn kàddu min ridwanillah kàddu gu yàlla gërëm pour moom jàppul sax wax na dara yàlla subhanahu wa taala gërëm ko ci tàbbal ko ci àjjana ba faw comme it contraire ba ni muy amee nit dana wax benn kàddu ci kàddu gu yàlla bañ jàppul sax na wax na dara yàlla mere ko ci ba faw su ko defee kon loolu di lu ñuy war a bàyyi xel sunu borom subhanahu wa taala mu ne jëf yu baax yi moo ko yëkkati am ñu ne jëf yu baax yi tamit yàllaa ko yëkkati mu jëm ci moom ci ay malaakaam ñoo ko yëkkati donte ne ne ay mujahid ak ñeneen nañul ñoom dañ ne déedéet kàddu yu tey yooyu amul lenn lu ciy dem ca yàlla lu dul daa ànd ak jëf ju baax jëf ju baax yi mooy yëkkati kàddu yu tey yi ngi mel na tey jii benn waay ngi nii takkusaan jot na mu daal di dem ca jàkka ja laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah subhanallah alhamdulillah ba ba jant bi so julliwul takkusaan gaa yi zikkaram yooyu yàlla dana ko jëla waay déedéet kon fokk nga def li yàlla santaane ci jëf jëf yooyu doog a yëkkati kaddu yu tey yi looloo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax ñu loolu lan moo ko yëkkati al amalu saalix mooy jëf bu baax bu yàlla subhanahu wa taala gërëm wal amalu saalixu yarfa'u borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñi nga xam ne ñooy pexe ay ñaawteef ca ña ca jiitu mooy ñiy fexeel diine yàlla ji ngir ngir fay ko ci kaw suuf ñiy fexey gàllankoor jullit ñi bañ bañ a jaamu yàlla sunu borom mu ne mbugal boo tar mi ngi leen di xaar bu bokkul ak ba ñuy mbugal yéefari ordinaire yi te day pexe boobu ñuy pexe ci neen rek lay mujj ca mbokk diini lislaam xeex ko mooy nga fekk benn taal bu yanj nga tiim ko di ko ëf day gën a tàkk am déet ngi noonu bu dee taal bu woyof nga ëf ko day fay mais bu dee taal bu yànj nga tiim ko di ko ëf day gën a tàkk islam luñ ko gën a xeex mu gën a jëm kaw te wallahi mi ngi noonu da ngay gis ne tey ji événement yi amoon fële ci 11 septembre donte ni gërëmuñu ñu jëfinu yooyu waaye quand même am na ñu amee Amérique yépp a takko bu saay saay ba wax croisade il faut ñu xeex wax affaire l'islam bombardé Afghanistan lu la ñu def ko xalaatkat yépp yëg nañ ni keroog la islam gën a avancé biir Amérique lu ci daan dund par at dafa doublé ba mboolem librairie yi nekkoon États-Unis luy wax ci l'islam de surtout fa lépp law gaa yi génn am na ñaari jeunes yoo xam ne ñu ngi leen laaj ci rajo Arabie Saoudite te seen émission boobu ñu tudd mooy li ma aslam naa pourquoi ñu dugg ci l'islam journaliste bi di leen laaj waaw yéen fu ngeen xam ne l'islam ñu xoolante ñu ne ñun Bush moo ñu dugal ci lislaam mu ne leen Bush ñu ne waaw mu ne ah loolu nu mu demee mu ne ñoom turu lislaam ci George Bush lañ ko jëkk a déggee dañ toogee di waxtaan dégg Bush naan islam islam ñu ne mais du lislaam ñu dem bind ay livre ci lislaam nee na niñ ko jëndee liir ca la ñu xam lislaam fa la leen yàlla gindee ñu dugg ci lislaam kon li borom bi wax ne ñooñu pexe pour arrêté diina ji yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim wa yaba allahu illa an yutimma nuura wallahu yutimmu nuurihi walaw kariha alkaafiruun mi ngi noonu wax ko ñaari yoon mooy coono buñ mën a daj pour xeex lislaam yunfiquuna amwaaluhum li yasuddu an sabilillah fa sa yunfiquunaha summa takuuna alayhim xasratan summa yuxlabuun daañ dépense seen alal lépp nekk pertaange teewul ñu not ñu not leen gis ngeen kon makru ulaahika huwa yabuuru borom boobu nga xam ne subhanahu wa taala nee na moo leen bind jële leen ci suuf te mbokk ba fi may wax ak yéen sunu école yi sunu xale yi def lycée sixième lañ leen di jàngal mooy doomu aadama ci golo la jóge ba fii may wax programme national la ñuy jàngal sunu doom yi mooy doomu aadama ci golo la jóge doomu aadama dafa am li ñuy tuddee le hasard et la nécessité évolution moo am ba nit yegg si fi mu yegg si waaye ay toq wala ñaan la ñu woon di évoluer évoluer ba yegg ci golo sunu maam yi ci golo yi lañ jógee mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk loolu du dëgg du dëgg ci xalaatin alhamdulilah tey de grands scientifiques yoo xam ne diine taxul ñu wax sax théorie boobu sànni nañ ko ci àll ba du dëgg kon lan muy dëgg suñu borom mu ne maa leen bind ci suuf laa jële seen bay aadama defar ko dundal ko muy dund yàlla mi jëloon yatu Muusa mu wow kom bu ko sànne mu nekk jaan ju wér noonu la defaree suñu bay aadama muy statut boo xam ne ban la mu def ci ak ruuxam mu nekk nit di dund mu jël ci moom defar yaay xawa boole leen ñu commencé jur di jur di jur góor jigéen góor jigéen su moom xawa bi mu daan commencé jur par ñaar lay jur bu juree ku góor ak ku jigéen ñaar ñooñu sëy xaram na seen diggante léegi ëmb bi ci topp day jur góor ak jigéen su ko defee góoru kii sëy ak jigéenu kee jigéenu kee sëy ak góoru kii noonu lañ daan sëy ba li ëpp ci mu fassiru nii nee nañ loolu moo indi woon diggante Haabil ak Qaabil ñu ngi noonu ndax ba nga xamee ni nii dem nañu Haabil daal di am ki mu bokkal ku jigéen Qaabil judd moom it am ku mu bokkal ku jigéen mais kooku mu bokkal ku jigéen rafet lool biñ demee ba màggee mata sëy Haabil ñëw di jël ci soxnaam te mooy ki ànd ak Qaabil Qaabil na ko lan waa jëlal sab seex ma kii sab seex ma moom laay jël dégg nga ñu jàppante ci alors ñu ne waaw nañ dem ba xam lu yàlla yi atte ñu ne ñu dem qaabil comme moom ab baykat la woon mu daal di dem jël ay gub yu ñàkk solo indi teg amma ki di haabil sàmm la woon mu dem jël kuy mu rëy ñëw teg bu boobaa comme ñoom doo nga nekk ci kaw suuf amuñu ku ñuy sarax safara boo daan jóge koo asamaan nangul ki yàlla nangul safara bi jóge ko asamaan jël lii di xarum haabil qaabil na ko nag yow moom dinaa la rey mu ne ko ah histoire ba gis ngeen ni ko yàlla nettalee soo jógee di ma rey day man du ma la rey kaza wa kaza almuhim dem nañ ba mu mujj ko rey ba mu ko reyee rëccu na ca xamul nu mu koy def ba yàlla moo yónni ab baaxoj baaxoj bi won ko ne dañ da nga ko war a suul mu suul ko jàngoon nañu histoire yooyu ca Maïda liñ ci jublu rek suñu borom mu ne jaalakum azwaja loolu di xiiwal gu yàlla di def ci ay jaamam mooy di génnee góor di génnee jigéen à toute génération mu ne leer na bu ñu toogoon tey ji un siècle boo xam ni benn jigéen judduwul ci kaw suuf àdduna tukki góor judduwul àdduna tukki xaw ngaa mën a wax sax bu ñu toogoon 60 ans yoo xam ne benn jigéen judduwul rek àdduna tukki. ay na góor moom mën nga am doom ba cent ans mais en général jigéen bu am doom après après cent ans c'est très rare loolu kon xéewalug yàlla la su ma jaxalakum azwaja borom bi nag subhanahu wa taala ne xam leen ne amul benn jigéen buy ëmb unsa mooy lu jigéen nit ku jigéen góor xar mu jigéen nag bu jigéen janax bu jigéen ila axiri amul kuy ëmb lu dul ci xam-xamu yàlla la ëmbee na am boo ko julit biñ demee ba yàlla won ñu tey processus ëmb ni muy demee ak lay jóge ci ku góor ko nekk ay millions mu ngi noonu gaa yaa ngi varié naan doomu aadama buy normal dina génne quinze ñu naan ba soixante sax millions de spermatozoïdes yoo xam ne il faut ñu multiplier ko des millions de fois pour gis ko suñu borom moo koy guider ba benn dugg ca la nga xam ne mooy lay jóge ci ndaw si wala ñaar dugg su ko deexee dugal ñett ba dugal sax huit personnes da nga gis koo xam ne mën na wasin juróom-ñetti doom loolu ci kattanu yàlla jalla wa ala mu ni wasin gi it ci sama xam-xam lay demee yàllaay xool la ka ca neex ndaw sa wasin ko wala ndaw sa avorté ko mi ngi noonu ci kattanam jalla wa ala sunu benn jigéen daf ma woo na ñaanalal sa jarbaat bi de moom day dañoo dem ñu ne ay seex la ëmb seen xale bi daa tuutee tuutee tuuti ma ne ko waaw moog janax ku ëpp ah dëgg dëgg bu ëpp janax de ma ne ko janax bi ëmb juróom benn am déet janax bi gën a tuuti yàlla da koy may mu ëmb juróom benn gis ngeen ñay bi gën a rëy benn doom lay jur ca bala koo jur day bëgg a dee amaa jalax mu dina am juróom benn génn leen sans problème kon loolu mbokk mooy kattanu yàlla jalla wa ala te alhamdulilah nañ ko jorte woon wusit na ay seexam sans problème nga gis ponkol jigéen boo xam ne nii mat na pesé cent cinquante kilos dem pour mu am doom rek dana xar hôpital bi ci ilaahi kon yàlla mooy def lu ko neex ci ay jaamam amul kenn kuy ëmb kuy wasin lu dul ci xam-xamam naka noonu itamit waaw naka noonu itamit amul kenn koo xam ne day dund dañ koy dundal wala ñuy wàññi ci ay dundam loolee ñu ne amul kenn ku ñuy dundal dund gu gudd wala keneen ku ñuy dundal dund gu gàtt lu dul lépp ci téeram yàlla bi la nekk naam yàlla moo séddali dund yi ñii mu may leen la nga xam ne mooy téeméeri at ñii seenu dund seen biiru yaay lay yem am na ñoo xam ne ba la ñuy dund rek dee ñu ngi noonu diggante boobu it lu ne ngay gis damal armée lu yoof kii deux ans trois ans quatre ans cinq ans âge bu ne da nga ko fa gis mi ngi noonu doonte ne ni lenn ci borom xam-xam yi dañuy firi te ñuy dundal ay ka ñuy yokkal ak dundam ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jëf ju baax ji nit yi jëf lu baax jox ko mbokk yi ak def teraanga ci masaakin yi ak fuqara yi loolu day guddal ak dundoo amma def lu bon agresseurs yi ak yi dama noonu day gàttal ak dund am ñu jàpp ne yàlla subhanahu wa taala xam-xamam mun du changé waaye am na téere bi moo xam ne moom la jox malaaka yi dundub waa ji lii ca nekk amaa nag bu defee jëf ju baax yàlla yokk ko ci téereb malaaka ba bu defee jëf ju bon yàlla wàññi ko ci téereb malaaka ba am ñeneen ñu jàpp ne déet du ne temps bi mooy yokk waaye yàlla day barkeel dund gi ba ko doomu aadama dana dund cinquante ans mel ne cent cinquante ans lu dund xoolal ay imam Nawawi yi ñu jàng ay Riyadu Salihin buñ la wanee li mu dund yëpp ci dundul sax juróom fukki at ah ngi noonu nga gis benn waay bu dund ci kaw suuf cent cinquante ans mais dafa mel ni mu su fee jaar amul leen lu mu fi bàyyi gis ngeen kon yàlla subhanahu wa taala mooy guddal ak dund doomu aadama ci barke ba muy barkeel dundam di gàttal ak dundam ci yàgg na fi mais am fi benn njëriñ loolee da ngay gis ne am na ñoo xam ne loolu lañ ko firi wallahu subhanahu wa taala alam borom bi nag nee ni loolu lépp boo delloo mi ngi nekk ci sama téere ba ca loolu lu yomb la ci yàlla te mbokkoo mi ngi noonu sunu borom yàlla avant muy génne li mu bind asamaan ak suuf juróom fukki junniy at la bindoon ab téereem téere boobee da ngay gis ne amul lenn lu ci rëcc nee na xatta waraqa xob bi wadd ci garab dara rëcc ko sunu jataay bii ma nga woon ca téeram yàlla ba ñi ko teewe ña nga fa woon ku bokkul woon ci bindug yàlla ga mën a fexe ba teewe ko loolu nag mu ne lu yomb la ci man mi ngi noonu jalla waala
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
barakallahu fiik suñu borom mu ne wa ma yastawi albahraan yemul mukk ñaari géej ya arab ndox mu bëri mu nekk da koy wax bahr donte ne ma ngi ci jublu dex ga ak géej ga haza muy dex gi azbun furaat dafa lewet doon loo xam ne nii dafa neex a naan nawet na neex na azbun furaat saairun sharabu yombo jàllale la nga xam ne mooy naanam ga wa haza beneen bii di géej gi milxun ujaat dafa saf xorom weqat wa min kullin doonte ne ci yëpp ca dex ga ak géej ga taakuluuna laxman tariya yéen a ngi ci lekk yàpp wu nooy ca mooy jën ya wa tastaxrijuuna xilyatan talbasuunaha di ca génne ay takkaay yu ngeen di sol wa taral fulka fihi mawaaxira ngeen gis gaal ya nekk ci di xotti ndox ma di jàll li tabtaxu min fadli ngiree ngeen sàkku ci ay ngeneelam naam wa laallakum tashkuruun ngiree ngeen sant seen boroom yuliju leyla fi nahaar mooy dugal guddi ci biir bëccëg wa yuliju nahaara fi leyli mooy dugal bëccëg ci biir guddi wa saxara alchamsa walqamar moo tàggat jant bi ak weer wi kullun yajri li ajlin musamma lépp ngay dox jëm ci dig bu ñu tudd ba pare zalikum allahu rabbukum kooku day nekk na yàlla mi seen boroom lahul mulk ñel na ko nguur gi yépp walazina tad'uuna min dunihi ñi ngeen di woo ñépp te du moom day maa yamlikuuna min qitmiir ñoom day moomuluñ leen sax la nga xam ne moom mooy qitmiir boo xol boo xaree tàndarma nga xool xoox bi am na mbuus bu weex bu ko ëmb dox digganteem ak li ngay lekk loolu mooy xitmiir in tad'uuhum su deen da nga da ngeen leen a woo laa yasma'u du'aakum duñu dégg seeni ñaan walaw sami'u bu doon tamit dégg nañ ko masta mastajaabu lakum amuñu kàttan wuy si leen ca la ngeen leen di woo jëmee wa yawma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum allaaxira daañu weddi seen bokkaale gi ngeen leen doon bokkaale wala yunabbi'uka mislu xabiir kenn du la mën a xabaare nam demee lu mel ni ki nga xam ne moo ñàkk kumpa muy jalla wa ala mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne du yemoo mukk ñaari géej yi ca loolu it lum lay jàngal mooy nit ñi it yemuñu da ngay gis géej gi te ma ngi ci jublu dex ma nga doon loo xam ne lu lewet la lu neex la lu yomba naan la azbun furaat saaiga muy ndoxu dex bokk na ci tey waa Dakar li ëpp li ñuy naan mi ngi jóge ci Lac de Guiers ba nekk fële ci Kër Masar ah Kër Momar Sarr comme li ëpp ci waa Fuuta yi ñu ngi naan seen ndexu de seen ndoxu dex yooyu borom bi subhanahu wa taala géej gi nga xam ne ca loolu ci xikmaam la ndax ndoxu dex noonu muy dawee sunu borom def ko mu yomba naan bu dee géej gi nga xam ne dafa toog moom nekkul di daw di dem ilaaxiri la cay dund di ca dee kenn xamul nu mu toll sunu borom yàlla wexal ko xorom te bu dul woon ak wex xorom boobu ci kattanu yàlla nit ñi duñu mën a dund ci kaw suuf ngir xet xet gay jóge ci géej mais xorom boobu moo koy moo koy wàcce borom boobu ne mi ngi noonu weqat soo bëggoon naan ndoxum géej tey musiba dana la dikkal borom boobu nag ne ci kattanam ci biir xorom bu weex bee ak ndox bu neex bee fu nekk ay jën ñu ngi fay dund mi ngi noonu ngeen di ci lekk jën yu tooy ca mbokk rawatina ñun waa Sénégal dañu naan la deuxième ressource bi Sénégal di amee ay devises yu ñuy mën a amee alal mi ngi jóge ci géej gaa yi géej gi nag suñuy maam ñoo ko fi defoon déedéet suñu borom yàlla moo ñu ko tàggatal mu ñuy jural ay milliards ñaareel ba mooy lu ëpp ci kër Sénégal yi boo demee midi fekk na nga toog te ceebu jën kon ñi ngi ci lekk di ci jaay di di di dundee loolu di xiiwalug yàlla jalla wa ala gannaaw ba suñu borom mu ne yéen a ngi cee génne lu mel ne ay lu'lu'u ay marjaan ay perle ay corail yooyu nga xam ne nekk na ay takkaay rawatina ñeel jigéen ñi ak ña bëgg àdduna di ko def ay jaaroo gi kenn xamul yooyu suñu borom yàlla mu ne noonu ngay gis ci biir géej gi ak biir deex gi gaal ga di ko xot ci di jàll muy kawtiif bu rëy kawtiif fi gaal gi ci boppam nga xam ne yàlla moo defar matière première bi doomu aadama assemblé ko rek te premier gaal yàllaa ko xamal nit ñi ci yeneen ci yàlla noo waaye ñaareel bi it ni ñu koy waxee daa iman mbokk suñu borom moo bind matière jël ngelaw li gis nga ni mu woyee fi portable boo yëkkatee ba bàyyi mu daanu nga gis suuf bi ni mu diisee mu jël ndox def ko diggante ngelaw ak suuf da nga xamee ni woyeful ba bato bi bu demee rek dem waaye da ngay gis ne bato bi dana ci mën a taxaw ba bëggee dem xot ci dem te rawatina bateau à voile yi nga xam ne tey touristes yi ñoo ko dese bu jëkk suñ maam yi moom lañ daan tukkee gaal gu toll ne jàkka ji dañ koy wutal ay wiir voile yoo xam ne di orienté ngelaw bee koy jël mën ko jële continent ba continent loolu lépp ci kattanu yàlla jalla wa ala kon mu ne yéen a gis ni que bateau yi di xottee di dem borom bi nee na loolu def naa ko ngir ngeen di sàkku ci ay ngëneelam ca quatre-vingt-dix pour cent ci li nga xam ne day dugg Sénégal ci bato yooyu lay jaar ceeb ba ngay lekkat yëre yaag machine yaag oto yaag lépp loo gis quatre-vingt-dix pour cent la fi dugg ci biir bato yooyu lay jaar yàlla moo ñu ko tàggatal mu ne waa lii nag dama ko defee pour ngeen sant ma ci e waaye Sénégal boo dooree sa ceebu jën ba féex neen alhamdulilahi rabbil alamin jën bi yaa ko doon yar di ko xont yàlla moo ko juddul ci biir géej di ko màggal ba mu toll nii mu toll waa ji daa def rek seppi indi jaay la ngal dóor ba gàtt santal yàlla subhanahu wa taala ceeb bii nga xam ne ñu ngi ko bay Cambodge wala Pakistan wala Caroline ci États-Unis nga jël dank ba ba suur eh way santal yàlla parce que boo xoolee processus bi am fa mu jógee ba bàyyi yegsi ci yow chaîne bi ci yàlla def kenn xamul ñaata xéewal la mi ngi noonu kenn xamul ñaata xéewal la mi ngi noonu donc te ne am na benn waay bu ma dégg nee na dafa dem benn daje bu ñu amoon ci dëkk Europe yi daal ñu ne ñu ngi fa invité ay chrétien nee na am benn labbe mi ngi ñëw toog ñuy lekk avant ñuy lekk mu ne yàlla ñu ngi lay sant yooyu mi tawal asamaan jox suuf ordre mu mu mu daal di ñoral lii mu ñor yaa tàggat say nit ñoo ko bay ñoo ko yenu ñoo ko defar ñoo ko nangam wax a wax a wax ba baa mu yëgsi ci bool bi ma ne ko gis nga ñun yàlla dañoo simple leen lii ñun jullit yàlla daf ñu ko simple xam ñun lu ñuy wax naan bismillah jeex na boo ko mënee bismillah rek loolu lépp ëmb na ko mooy yaa ngi jàpp ne lii day xéewalug yàlla la yaa ngi koy lekk ci turu yàlla amma suñu borom mu ne in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha gis nga waajo ji loolu mu wax kilométriquement am na lu bari lu mu fàtte wallahi am na lu bari lu mu fàtte ñu noonu ay doomu aadama fal yanzuru insaani ila ta'ami sa ñam bi produit ci dem yépp boo xamee fa mu cosaanoo ba baa ceer si sa bol bi ah boo ko doon lim ab xiif dana la rey waaw moom koy ngeen bismillah rek nga lekk soo paree nga ne alhamdulilah jeex na ñun loolu lañu ko lislaam simple la bismillah lekk ba suur bismillah naan ba màndi soo paree alhamdulilah sa jaan wàcc na yàlla bindal la tuyaaba tegal la ci mi ngi noonu sa jaan wàcc na yàlla bindal la tuyaaba tegal la ci mooy la'allakum tashkurun borom boobu nag wax ñu dans l'espace wax nañu géej gi la muy def ak ñoom wax ñu la nga xam ni nii moom lay def ak ngelaw yi ila axiri tey nag mu ñëw la ñuy tuddee le temps mu ne gis ngeen seen temps bi maa koy changé nu ma neexee heure yi nekkoon guddi maa ko jël di ko def bëccëg heure yi nekkoon bëccëg ma def ko guddi donte ne Sénégalais bi liñ ci yëg lu néew lay doon ala kulli xaal daal léeg la nga gis na ñu ngi julli ay 7 heures moins 20 fajar léeg la ñu ngi julli 6 heures moins 20. kon nga gis guddi gi jël ci bëccëg bi une heure de temps amaa boo demoon dëkk yu mel ne Europe am na yoo xam ne mën na changer de quatre heures de temps am na ñu changer de six heures de temps am na yoo xam ne mën na huit heures de temps boo demee ci pôle yi ñoom dañuy changer six mois six mois six mois guddi six mois bëccëg loolu kattanu yàlla la jalla wa ala borom boobu subhanahu wa taala mu ne mooy ki nga xamee ni nii moo tàggat jant bi moo tàggat weer bi ñoom ñëpp ñi ngi daw jëm ci dig boo xam ne yàlla bind na ko ba pare tudd na ko ba pare fa lay war a arrêté kii nga xam ne mooy def lii nag mooy yàlla mii seen baroom zalikumullahu rabbukum amma ñeneen ñi ngeen di woote duñu yàlla moomuñu sax yàlla waxul tàndarma waxul xooxu tàndarma waaye day moo moomuñu xitmiir xitmiir booy dog boo xaree tàndarma bi génneel xoox bi lu weex loolu ko ëmb nag nga yëkkati ko xool mu transparente noonu yàlla mu ne xitmiir boobu sax moo mënuñ ko ci kaw asamaan ak kaw suuf ngi noonu te buñ dajale woon mboolem mbindaa fa yi ne leen créé leen xitmiir à partir de zéro mënuñu ko mi ngi noonu yàlla rek mooy créateur jàlla wa ala mënuñu sax créé leen loolu borom boobu nag subhanahu wa taala da ngay gis ne nee na su ngeen leen dee woo ñoom dégguñu woote bi doomu aadama mooy dalal xelam fakkastalu fee ne yaa cheikh diw dalal xelam ci loolu waaye wallahi dégg ko déggul woote bi suñu borom yàlla mu ne moo ne de même bu ko déggoon day munu ci dara même bu ko déggoon munu ci dara ñu ngi noonu mënu laa xëccali ci loolu te ji mboo nekkoon fii benn waaye nga États-Unis nga am ab sa problème na ko yaa diw loolu yi amul kattan gu nekk États-Unis intervenir directement loolu kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala kese mooy ki nga xam ne moom la ay jaamam mën a woo kattanam nga mën a dem fu ko neex ci ay jaamam ñu ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ne yowmal qiyaama dañuy weddi la ngeen leen doon bokkaale bu dee ñoo baax la dañ ko weddi comme Isa ibnu Maryam ak Uzayru ak ñu mel ne moom ak ñu bëri ci suñu Sénégal ak suñu Mauritanie ak suñu Amérique mooy képp koo xam ne da nga doon jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ba yàlla gërëm la nga dem am ñeneen ñu ñëw di la jaamu sa gannaaw soo dajeeg ñoom yowmal qiyaama da ngay denc ñoom leneen luñ doon jaamu ci nga gërëm ko it da nga ànd denc ñoom teewul da ngeen di ànd dem sawara yowmal qiyaama lañ weddi seen woote gi seen jaamu gi kenn nag mënu laa xamal naka la mbir yi demee ci nu mel ne yàlla jalla wa ala mi nga xam ne moom amul benn kumpa mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
waaw barakallahu fiikum yaakaar naa ko xam lu Cheikh Ousmane bi daj ci fukki guddi yi da nga comprendre yal na yàlla yokk ko doole ak kattan ca nangul ñu nangul ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ya ayuha nnas ay yéen nit ñi antumul fuqaraau ila allah yéene nekk ñu aajowoo jëm ci yàlla wallahu huwa alganiyul hamid yàlla nag mooy ki woom léegi ki nga xam ne sant yépp moo ko yeyoo in yasha yuzhibukum su ko neexee day mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindaafan gu bees wa ma zalika ala allahi bi aziz te loolu day ci yàlla nekkul lu ko të wala taziru waziratun wizra uxra du yenu mukk aji yenu kat yenu keneen wa in tad'u musqalatun ila hibliha heure bu wootee aji koo xam ne nii dañoo diisal ab yenam ci moom mu woote ngir ñu teggal ko ko laa yuhmalu minhu shay'un kenn du ko ca yenul dara walaw kaana za qurba donte ne kooku muy woo aji jege ñaale bu ko gënoon a jege la innama tunziru lazina yaxshawna rabbahum da nga nekk di waar ñi nga xam ne dañuy ragal seen boroom bil xaybi ci kumpa wa aqamu salaa ñu taxawal julli wa man tazakka képp koo xam ne yaa ngi sell fa innama yatazakka li nafsihi képp koo xam ne yaa ngi sellal sa bopp yaa ngi sell ñeel sa bakk ya yaa ngi sellal ñeel sa bakkan kese wa ilallahi almasir ci yàlla la lépp di dellu mi ngi noonu bokk suñu boroom fax aaya boo xam ne jullit bi war na koy bàyyi xel fu mu mën a toll mu ne ay yéen nit ñi yéen a ngi aajowoo jëm ci yàlla ay jullit xamal ne sa borom yàlla moo lay taxawu ci sa lépp lépp da nga ca aajowoo jëm ci yàlla tey jii masalan yaa ngi jël lekk ba suur naan ba màndi ma gaa yi di foofu nga mën a yema kan muy jël lekk googu jaare la ko ci benn machine boo xam ne moo ko fa def daal di koy transformer génne ci la nga xam ne mooy deret jay jëriñ dugal ci biir orga- organisme bi dajale la nga xam ne mooy déchets yi départager ko léegi nar a génn am ndox léegi nar a génn ay cabinet kan mooy ki nga xam ne yaa ngi toog di noyyi mooy jël ngelaw loolu jël la ca nekk ci oxygène tasaare ko ci sa biir xol beeg poumon yi la nga xam ne mooy gaz carbonique bi mu dégagé la ko nga génne kan mooy la may kattan ba nga mën a nelaw gannaaw nelaw yi kan moo lay yee kattanal la mbokk da ngay gis doomu aadama su ma waxee jëmmam waxumaa nag li ko wër antumul fuqara ila allah amul looy am lu dul ci yàlla kese la mën a jógee amul lenn loo xam ne ni mën na laa teggi lor lu dul ci yàlla kese la mën a jógee amul looy xam lu dul yàlla la ko xamal mi ngi noonu amul looy man lu dul yàlla la ko manal yéen ñëpp da ngeen aajowoo jëm ci yàlla antumul fuqara ila allah am amma suñu borom yàlla mu ne mooy ki nga xam ne mooy alxani moom nekkul di soxlaal kenn dara ca mooy ki man lépp ñëw na ci xadisul qudsi suñu yonente alayhi salaam ne seen borom nee na ay yéen nit ñi ak jinne yi su ngeen daje woon ci benn place ku nekk ñaan ma li mu soxla ma defal ko ko lépp wàññiwul sama ngóor gi lu mel ni li pusa di wàññi ci géej ay yéen nit ñi su ngeen daje woon yéen ñépp ci xolu ki gën a bon ci yéen wàññiwul ci sama ngóor gi lu toll ne li puso bu ñu samp ci géej sempe ko lu mu cay wàññi ay kon suñu borom huwal xëri moo woom la ci ñëpp moo tax mu ne su ma neexee ma yóbbu leen indi ñeneen gars yi téeméeri at ci gannaaw ala ñu doon dox ci mbedd Dakar mi ngi noonu mën ngaa wax ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ba dee nag ña deewul it dee moo leen gënal dund gis ngeen ñun ñii nekk fii tey téeméeri at ci gannaaw ci kanam fu ñu nekk ñun ñëpp dañuy dee gis ngeen bu ci sax xalaat mi ngi noonu su ko defee kon suñu borom moom aajubawuñu bu ko neexee yóbbu leen indi ñeneen ku ko jaamu sa bopp nga jaamul ku ku ko jaamul yaa xam moo tax borom bi ne xam leen ne amul kenn koo xam ne dana yenul kenn loo xam ne nii ab bakkaar la yowmal qiyaama te it mbokk looloo yàq diine yi ñu bari ci nit ñi tey mooy doomu aadama yi jàpp nañ ne luñ mën a def ci lu bon da ngay gis ne am na koo xam ne mi ngi leen di xaar yawmal qiyaama loolu moom dana leen ko gàddul ñu ngi noonu su ko defee loolu ndeysaan bi ñu yàlla natoo ci rajo yi ak télévision yi dafa gën a yokk benn waaye ngeen ci télévision bi nee na sëñ diw de bi yàlla di defar ruux yi ci kanamam la léegi ruux ya nga xam ne moom la ca tànn ñu nar koo gëm fa la leen commencé sàmm di leen sàmm di leen topp adduna ba ëllëg mu dajale leen tàbbal leen aljanna ma gars yi xoolal ma lii ah su ko defee kon doomu aadama yooyu itam dañuy gis dañoo jàpp ne kon buñu demee àllaaxira rek diw dana rek la mbir mi waaye mbokk suñu borom mu ne amul kenn ko yenu bàkkaar ci ñépp a yenu bàkkaar i nga noonu ñépp a yenu bàkkaar amul kenn ko yenu bàkkaar di ko yenul keneen képp koo xam ne say bàkkaar diis na ci yow nga woote pour ñu wallu la kenn du la ci wallu taaj yi waa ji dajeek yaayam ay saa yaay man day maa la doon defal nangam nangam nangam yaay sa bàkkaar yi daa bëri jël ci dara mu ne la man jógal fii yaay ji dajeeg doomam ay sama doom man de maa la ëmbal maa la doon nampal ay sama doom kaay xëcc li ma may ma tuddi tuyaaba mu ne ko yaay jógal fii yawma yafirul mar'u min axihi min ummihi wa- wa abihi wa ummihi wa axihi ila axiri suñu borom wàccoo na ak ñun nee na yaay day daw doom doom daw yaay bàyyi daw ba daw bàyyi daw doom ila axiri amul kenn koo xam ne lum la jege jege jege dana la mën a yenul benn bakkaar wala mu séddale benn tuyaaba loolu kon dafa war a leer ci bopp doomu aadama yi donte ne aka caa jëfee leeral borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne yow yonent bi ki nga mën a waar mu waaru mooy ñi nga xam ne dañu ragal yàlla ci kumpa yaxshuna rabbahum bil xayb yaxshuna rabbahum bil xayb gis nañ ñi ngi ragal yàlla ca li yàlla wax ci kumpa yépp gëm nañ ko ragal nañ sawara gisuñu sawara ragal nañ yàlla gisuñu yàlla donte ne am na ñu koy firee yaxshuna rabbahum bil xayb mooy bu ñu wéetee ni ñuy ragale yàlla ba ñu nekkee ci nit ñi it noonu la ñu ragale yàlla ku mel noonu day boo ko waaree dana jëriñu mais ki nga xam ne yoonam nekkul ci yàlla yoonam nekkul ci bëggulu yàlla boo koy waaree da ngay sonn rek mi ngi noonu amma yàlla wax nañu sànq ni kii def bàkkaar ci moom lay yem laa taziru waaziratun wizra uxra waaw kon ñu ne tuyaaba nag tuyaaba yi suñu borom mu ne lu waay def ci lu baax boppam la ko defal wa man tazakka fa innamaa yatazakka li nafsi donte ne it foofu it seytaane galgal nañu fi ñu bëri jàpp nañ ne sëñ diw bi mu liggéeyee la taxoon muy liggéey du moom waaye da doon liggéey ngir xeet bi da doon liggéey ngir ñi ko topp mbokk loolu njumte mënu koo paase suñu borom nee na lu way sellal boppam. lu way def ci lu baax ci bakkanam lay yem kenn du jàpp ne kii kat moom ko bon la woon jaarul fi neex yàlla waaye ñu ne ah dañu rus baay bi rek tabbal ko àjjana wala kii kat ku bon la woon jaarul fi neex yàlla waaye ñu ne waaw doom ji de ko baax la nañu rus doom ji tabbal ko àjjana mbokk loolu amul suñu borom wàccoo na ak ñun nee na doomi nuux safara la jëm baayu ibrahima safara la jëm jabari luut safara la jëm jabari nuux safara la jëm kon lu way def boppam la ko defal su ko defee ngal la waay soo amee sab sëriñ fonk ko loolu day kenn bañu ko waaye yàlla na fekk na sëriñ ba da doon woote ci la neex yàlla ak neex yonent yàlla demal xool njàngale mam doon jàngale ci ne day lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax sëriñ boobu de boo ko toppee dana la tàbbal aljanna ay topp ga nga ko topp dana la tabbal àjjana donte ne mu mun laa topp tabbal àjjana waaye képp koo xam ne da ngaa jàpp ne naa doyloo ne suñ diw moom ko baaxoon la man nag naa régler sama commerce ba mu ne kocc régler sama famille ba mu ne kocc amma bu dee àllaaxir moom dénk naa ko suñ diw mbokk lii daa yomb lool am déet loolu da ngay nax sa bopp mbokk nañuy delluwaat jaamu suñu borom yaakaar yàlla ca doyloo yàlla mi nga xam ni nee na ilallahi almasir lépp ci moom lay teer yal na yàlla sellal ñu yàlla gindi ñu te defal ñu àddina ñu suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ku ne day laaj mu ne itikaaf moom nuñ koy defee itikaaf mooy nga yéene toog ci jàkka yàlla ji diir ba nga xam ni moom nga ci taamu la gën a néew loo xam ne moom la ci borom xam-xam yi di wax mooy benn guddi entier wala benn bëccëg entier su bëgg a itikaaf benn guddi day fexe bu jant bi dee so fekk ko ci jàkka ji mu fanaan ci jàkka ji ba suba mu dem guddi gi jeex na ki bëgg a itikaaf benn bëccëg day julli fajar toog ci jàkka ji ba ba jant bi so mu génn dem bu doon 24 heures la it bu doon bis la balaa jant bi soo ngay dugg ci jàkka ji fanaan ba suba bu jant bi soo nga génn loolu kon yaa xam un jour nga koy def ak deux jours nga koy def la gënoon a sax ci sunna yonent bi alayhi salaam bi mu fi jógee it saxaaba ya daan ko def mooy fukki fukki fan loolu la yonent bi alayhi salaam saxaloon di ko def allahuma lu dul année bi mu fi mujjee moom ñaar fukki fan ñaar fukki fan la ko def waaye ku nekk yaa seet lan ca mën nga def ko wallahu taala alam naam bismillah waaleykum salaam waaw loolu mënoon laajte baax ma gis kenn mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom naafile yi moom daan moom farata onze rakk léegi nag mu ne waa kër waa kër benn ñu tànn tarawih yi wala ñu tànn tahajjud wala ñu tànn tarawih ba noppi dem julli tahajjud mu yóbbu ko.
rasul sallallahu alayhi wasallam daawul passé onze rakka ci riwaaya Aïcha Aïcha moomu ci boppam am na beneen riwaaya mu ne daan na def treize rakka am na beneen riwaaya yoo xam ne dañ ne daan na def quinze rakka loolu mooy mbir bi yonent bi alayhi salaam daf ñoo wax ñu topp sunnaam topp sunna xulafa u rachidin ñooñu nga xam ne fi yonent bi alayhi salaam jógee ñi ngi doon julli daan nañ def ay vingt rakka biñ demee ci jamono Maalik daan nañ def sax 30 rakka almuhim mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam tënkul rakka yi ñu të- tënku ko fenn gannaaw ba mooy shahru ramadan yonent bi alayhi salaam dana man qaama ramadan koo xam ne dafa taxaw guddi ya loole yow yaa xam na nga koy taxawee sa naafila yëpp da nga koy def ci njëlbeenu guddi wala sa naafila yëpp da nga koy def ca fin guddi wala da ngaa am loo def ci njëlbeen ga am loo def ci digg ba am loo def ca fin ba loolu lépp yow sa kentalal kattan la nga xamee ne moom ngay def ci nawaafil yooyu lépp noo ko defee baax na lañu la ci tere rek mooy bu def ñaari witre waaye da ngay julli onze am quinze am vingt am trente am trente six am yépp am na ñu koy def loole da ngay gis dara nekku ci wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala ko bismillah naam imam est-ce que dañu wax ni weeru koor naafile boo def day taxaw taxawaay xarit su loolu def
ala kulli xaal ñëw na ci lenn ci ay xadis yuy wax lu deme noonu naan farate boo ci def naafile boo ci def dafay doon loo xam ne ah dafay taxaw place farata doonte ni ni nekkuma lu ma wattu dëgg dëgg dëgg fi ma toll nii daraja xadis boobu ndax bokk na ci xadis yu wér yi wala yu borom xam-xam yu wéri dil waaye la shakk ne rot na ci ay xadis wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal kii day soxna si day laaj mu ne dañu am soxna boo xam ne bu ñuy defar sàppe si moom fi mu toog rek lay toog bu ñu ko waxee mu ne julli farata du farata ci jigéen ala kulli xaal bu dee noonu mu wax noonu la demee day dañuy koy wax ne julli farata bi day julli jàkka bi du farata ci jigéen waaye nag boo xisee ba ñëw ci jàkka ji moom da ngay tënkoog teggi ni jàkka ji te mooy yonent bi alayhi salaam moo santoon ñuy defar sàppe yi ba pare mu ne ki beru moom amul julli ki beru sàpp bi amul julli kon ñu xam ne da ngay julli sa kër nga julli sa kër mais boo ñëwee ba ci jàkk ji moom li ñuy tuddee teggi ni jàkka ca mooy ñu yemale sàpp si ñëpp yem ci defar ko loolee moom dafa war góor war jigéen mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain